jaajëf jërë ngeen jëf ci seen àndi nag le buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen kontaane di rafetlu euh, seen àndi nag suñu programme muy doon mbégte kontaante saa su nit ñuy àndoo ak yéen ci ay jotaay yu ngeen di wétilikuloo mais également di dalal ay ndaanaan yoo xam ne miin ngeen seen taxawaay ñuy am mbégte tey ci fa seen am jotaay ak kenn ci suñuy papa yi nga xamee ni xam nañu taxawaayam ci li nga xamee ni euh, mooy société bi muy suñu papa euh, suñu papa Père Samy moom la rédaction Senbuzz di am mbégte Père Samy xanaa rek di la gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi am nañ mbégte tey seen bés TV fas yéene am ak yow jotaay. waaw fii la ëppee mbégte bi fii la ëppee. di profito à travers seen bés di nuyu le monde entier. comme àdduna bi yëpp tubaar fakàlla macha allah loolu la yàlla dogal ñëpp a leen di suivre. mu ciy profito di nuyu tout le monde entier. di leen euh, baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla jàmmi Sénégal euh, jàmmi jooju yàlla na law. ba dugg ci ba daj àdduna bi yëpp ci barke Serigne très bien alors euh, Père Samy Thioune dootuñu la présenter ku la tudd aussi xel yi dina dem ci li nga xam ne mooy Wally Seck certainement ak groupe Faramareen musique am loo xam ne nag y a des questions qui se quand même depuis Korité beeg léegi ginnaaw bi nga xamee ni am na appel bu dox si diggante ki nga xam ne mooy Sidy Diop ak Wally Seck démb ñu gis surprise Bass si kaw seenu ki nga xam ni mooy Wally Balago Seck fële ca Vogue yan explication wala ay leeral wala ban jàngat nga mën a def ci li parce que un artiste art bi dafa dafa rafet dafa war a rafet parce que un vrai artiste ki nga xam ni moom moo euh, bàyyi métier yëpp bëgg a doon un artiste xolam dafa war a leer xolam dafa war a sell parce que il est là pour faire plaisir au gens pour béggal doomu aadama yi te yàlla dafa am lu mu wax ci doomu aadama vraiment euh, ñëw bas démb daf ma daf ma touché lu ma neex la parce que ay xal lañu ils ont leur avenir devant eux ba pare dooni askanu géwël doon ay bokk doon ay paroles yi war a joxe ay message ba pare yamul foofu seen ay rakk ñi ngi ñëw àll l'avenir kon am na comportement boo xam ni seen ay mag seen ay baay meluñu woon noonu ñoom bu ñuy ñëwee bëgg a mel noonu seen ay rakk ëllëg lan la ñu war a mel kon li mu def démb. Hmm. mooy yoon. parce war na fekk Wally muy tëgg mu ñëw soiréem. Hmm. Wally war na bett paas mu dem soirée d'accord man loolu lu ma rafetlu la. d'accord vraiment euh, ndax mën nañu jàpp ni nouveau départ la bu ñu demee ba nga xam ni ñu bari ci melomaan yi dañ jàppoon ni dafa am guerre conflit bu am si diggante certainement Wally Seck groupe Faramaren ak yeneen maison de production yi nga xam ne ñu ñu ngi ci réew mi ndax mën nañu wax ni nouveau départ la wala tamit dafa am relation bu bees boo xam ne dafay dafay judd si diggante certainement groupe parce que Faramaren yàpp a beaucoup de musiciens tey da gis euh, ku mel ni par exemple benn musicien doon mbokk benn chanteur boo xam ne nekkul Faramaren beneen musicien doon mbekk beneen danseur boo xam nekkul Faramaren kon Faramaren dafa c'est une famille ba pare Faramaren répond au nom mythique Faramaren dëkk la xeet la te dafa yaatu. kon Faramaren mësul fàttal buntam ku yàlla bind te ngay artist du ci fecckat du ci bongoman du ci musicien du ci kenn Faramaren mësul am xaarma yàlla ak kii que ce soit peut-être nag boo jiitoo problème mën naa am mbaa euh, nit ku nekk ñëpp matuñu nga def benn foopa pas wala nga def loo xam ni mooy loolu ñu am fu ko classé ba yeneen artistes yi di ci gis seen bopp ak yooyu mais Faramareen moom c'est une famille te askan la famille la dafa yaatu ku ne mhm. ku xaj nga ci d'accord alors ndax bu ñu mënuñu jàngatee tamit ni ki nga xam ni mooy Bass Thioung certainement bu ñu waxee tamit xel yi dina dem ci beneen maison de production bu ñuy wax Subatel bi nga xam ni ñu bari dañ jàpp ni euh, bu fekkee ne am na concurrence musicale bu gën a sonal groupe Faramaren jamono ji ñoom la ndax it loolu amul leneen lu ñu si mën a jàngatee ci li nga xam ni mooy présence su Bass Bass Thioung non dama leex benn affaire nag. Mm. Euh, li olof naan kuy jàpp jaan doo faale jiit euh, Faramareen amul benn concurrence hmm. parce que concurrence wul ak ku yàlla bind doon nañ feex naan day concurrence yu Ndour neen day concurrence diw comme Faramareen dañoo nekk seen ruq xam li ñu xam téye li ñu téye di liggéey nekk ci seen chemin concurrence suñu ku yàlla bind billaahi wallaahi tallaahi hmm. Faramareen concurrence ku yàlla bind dañoo téye li ñu téye nekk ci seen yoon di liggéey ku nekk ci sa yoon nag ku la ci fekk ci kaw yoon wi soit da ngeen di àndandoo dem mënu leen a ànd nga continuer sa yoon. d'accord mais Faramareen moom kenn du ko yàqal yoonam incha allah. Mhm. te ci yoonam la nekk di liggéey. mais buñ la nee day concurrence ku mu mën a doon. Mhm. mi ngi def erreur. Faramareen concurrence ul ku yàlla bind. d'accord am ñuy laaj ñu ne pourquoi Bass-Thioung pourquoi pas beneen artiste par exemple wante démb ki ñu gis mooy bastion thioung pourquoi bass am présence ci li nga xam ne mooy seen Wally sekk pourquoi pas par exemple di Diop wala yeneen ak yeneen. mais Bass kenn invité ko moo jël initiative toog këram xam naa ba am envie ñëw baal si Wally Seck ñëw Wally seen ko xam naa mu yéeg def participant euh, participation bëf. comme tout le monde. kon du invitation artistique. bon non. ok Wally euh, peut-être c'est les ces grandes dates. lu mel ni ay anniversaire am bés yu mag yeeg yooyu. dina invité ay nawlem. Hmm. mais ay soirée dimanche vogue nii. ok besoin nit ki moo koy sentir. ñëw ne xaaral ma dem Waly Seck. d'accord au moins xool li muy def wala ma ma demee euh, voilà bëf ci morso bi wala ci morso morceau bële quoi. d'accord ay yëg-yëg la ay sentiment la rek. très peut-être daf ko yëg. Mhm. jóge këram. dem d'accord. alors Père Samy xam nañu sa taxawaay ci li nga xam ne mooy musique euh, lan ngay tontu ci benn mbokk bu ma suggéré ni ma dafa jàpp ni jamono ji crise dafa am maanaam ñàkk juboo euh, ci diggante Bass Thioung ak waa teel looloo tax jamono ji mu bëgg lëngu ak ñi nga xam ne ñooy Faramareen loolu du ñàkk am nga ci écho wala am nga ci idée xam nga man man man man dama maandu Bass booy bu baax la bu ma jox cër la bu ma fonk ba démb sax bi mu paree wàccee tindi bi fekk na ma ci bunt bi taxaw nuyu ma saafonteeg man parce que cër boobu laa ko jox moom la ma delloo la muy xaw ma woon ni sax bas dafay liggéey ak euh, maxu maxu subateel en toute sincérité parce que maxu teeloo xippiwoo keneenoo liggéeyu maak ñoom intéressé wuñ ma xam nga man ku ma intéressé mm-hmm. nu may def man sama produit. Hmm. bi ma yor. Hmm. muy Ramadaan di Faramareen nu may def ba mu jiitu ñëpp. d'accord loolu moo ma intéressé. très bien mais vraiment beneen maison. d'accord xooluma la ñuy def intéressé. Ah, très bien alors nga ni wax dëgg yàlla Wally semaine bii dafa représenté lu bëree bëri bu weesoo loolu aussi am na soirée boo xam ne mu ngi ko doon def moog suñu maman kin na la am ñu tuddee woon ko démb ak tey loolu aussi du ñàkk am na am na ay kaddu yoo xam ne mën nga ko ci indi ah, ci côté organisation bi ci coté aussi innovation bi ak li nga xamee ni aussi moom la ñu wax démb ak tey. xam nga. démb moo tax ñu naan tey. Hmm. peut-être bu tey rafetee démb daf ciy bokk. ki ne laam def lu rafet foofu. Hmm. Hmm. xam ni peut-être magu démb la ne xaaral ma jël xale bi xew tey ma ànd ak moom. looloo waral démb ak tey mu ci doon sargal boroom këram. di sam papa alaaji ndongo caam dogo di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin amiin doon ci sagal ay magu démb. ku mel nii coon balaago sekk nga xam ni tubaar fakal la kaar yàlla na ko yàlla yërëm coon mm. def na lu ne ci musique bi kon ki mm-hmm. bu demee ba xam ni day def démb ak tey ne artistes yu démb yi dama mm. ciy jël balaago mi nga xam ni kinne wayli wayli la mm. ki ni la wayli wayli la waaye xam na ni coon wayli wayli la kon bu demee ba tey nag doomi coon mm-hmm. tombeek tey mu nekk sur la scène musicale muy sargal baayam mhm. kon Wally lu mu mën a def mooy jël lépp jàppale épaulé Kiné Lam ba ay idéem ak euh, li Kiné Lam bëggoon réussir ko à cent pour cent te vraiment xam naa ni réussir na ko à cent pour cent parce que Sénégal gépp mhm. apprécier nañ ko très bien alors muy initiative bu rafet xam nga ni tamit jamono jii gis nañu de trop quand même euh, approche boo xam ni musicale bien sûr boo xam ne am na ci diggante ki nga xam ne mooy Viviane ak Wally Seck ndax bu weesoo li nga xam ne mooy seen single bi marqué Sénégal dafa am yeneen yoo xam ne ñu ngi ci di liggéey wala dafa am ci ay projet yoo xam ne certes ay tournage wala ay concert yooyu yoo xam ne danga nga bàyyi xel ni ñii di waa Faramaren ñu ngi ciy liggéey ak xam nga Vivi dafa mën a way. Hmm. te tubaar fa kàlla Wally dafa mën a way kon mën ànd Wally peut Viviane moo feeñ mais Wally bàyyiwul benn kenn Wally kii bongo sax bu ñuy mën naa def ak moom dara parce que il est là ouvert te xam naa xolam. Mhm. xam naa ni ku ñëw gis ko toog wax ak moom. Mhm. mu ngeen ngeen sentirante war ngeen a mën a def lu nekk. parce que loolu la yàlla dogal. mais foofu laa yem parce que y a des secrets professionnels yoo xam peut-être. Euh, ñoom dañ koy bëgg a def soit surprise la population sénégalaise ba boo ci. sori di joxe indice leen ko amee mais. di leen féliciter ñoom ñaar di leen wax na leen du courage parce que single bi ñu def. Mhm. nice na trop. macha allah waaw ndax mën nañ xaar beneen single wala yow souhaité nga quand même ñu liggéeyaat ci beneen single bala maa. pourquoi pas Viviane dafa mën a way. Mhm. waal yu day way. Mhm. yaa ngi comprendre war nañu mën a chaque année. bu fekkee ni ñoom ils sont la pour faire plaisir à la population. bu ko population bi laajoon. ne leen suba mayaat leen ñu beneen pourquoi pas parce que ñoom bégal askan bi rek moom moo leen moo leen fi moo leen tax a jóg. alors alors euh, Père Samy Thioune moom la rédaction Senbuzz di am ak jotaay ñu xam ko ci taxawaayam ak li nga xam ne mooy groupe Faramaren musique ak ki nga xam ne aussi mooy Wally Seck leneen loo xam ni mënuñ la ci bañ a laaj bu weesoo expérience bi nga xam ne aussi am nga ko suñu borom def na nga yàgg tourné benn phénomène bu juddu quand même di phénomène africain mën nañu wax loolu phénomène mondial Dubaï porte à porte ñu comme yenn nationalité bi nga déggee idée boobu déjà ak pratique yu ñaaw yi nga xam ne aussi moom la Dubaï porte à porte di signifier ban yëg-yëg lay def ci Père dama am lu ma metti dama am lu ma metti parce que man sénégalais te am na fu ma ko wax am naa lu ma metti trop parce que sénégalais war nañ koo mën a jox solal beneen mbubb budul yenn yi ñuy dégg du ci juddu du ci warul doon ci jikko ndax suñu yaay yi lebaluñu loolu suñu bàyyi lebaluñu loolu te alalu àdduna jaru ko sama yaay soodo bu so doon na wax ne bu néewee day jeex bu bare dafay jeex kon na rafet alalu àdduna jaru ko jaru ko mais père noo koy jàngatee bu ñu demee ba nga xam ne ñi ñuy jàmbaaraamu tuuma mooy li Sénégalais yi di tuddee ay influenceuse par exemple ñoom la ñu wax ni ñoom ñooy faral di def pratique yooyu wala ay nit ñoo xam ni quand même ñu bari ci xale yi dañ jàpp ni am na loo xam ne mën nañ ko influencer ci société bi ñooñu ñu leen di tudd ci yenn pratique yu ñaaw yooyu rawatina dem bay sëy ak xaj fi nga xam ne certainement fa la ñaawteef ñaawteef yam ñu ciy tudd Sénégalais aussi loolu ban yëg la lay def. mooy li ma la que du alal. ci may ci dundal. bu fekkee dañ la ci jox xaalis. xaalis boobu koo ci dundal di ko layoog moom yomal am koo ko may di nga ko layoog moom yomal am te xaalis boobu ku xam sénégalais ak ku mu mën a doon xaalis boobu ku xam sénégalais xam ni sa ndey bëgg ko sa baay bëggu ko sa sëriñ bëgg ko xaalis boobu ñëpp a ko seexlu xaalis da nga ko war a am dignement liggéey ko. lu situation bi mën a deme ak lu cas bi critique nga toog amoo loolu lekk lekk ci ñaax yi sax a gën parce que damay dafa am loo xam ni daf ma jaaxal koo ci wax mu naan non dama bëgg teral sama yaay wala dama mais nit ñi fii ñi ngi teral seen yaay ak seen ay baay tey dama lay jox exemple sa kër sama kër sa sa soxla am na jànq jànq ba maximum du gën ngaa bari du ko fay trente cinq mille xoola jànq boobu am salaire trent cinq mille xam na ne ndeyam mi ngi ko bàyyi village bàyyam mi ngi ko bàyyi village mi ngi ci teral ndeyam di ci teral bàyyam dignement te di ci am loo xam ni vraiment day sax kawe njortam parce que ci ñàqam la nit da nga war a ñaq mm. mais topp yooyu ñu ba pare li ma ci gën a metti mu ñu naan non c'est un sénégalais. Mhm. man Sénégal gi ñu ciy tudd rek ba ci metti Sénégal. d'accord mérité wul loolu waaye alors ñu bari jàpp ne aussi du phénomène bu bees mais aussi ñi ñu ciy tudd mooy ay nit ñoo xam ni dañuy faral di am tur wala ay nit ñoo xam ni euh, quand même ci showbiz bi d'une manière générale dañu leen di xam lan nga ñu mën a wax aussi ci yenn réalité yi nga xam ne ñu bari dañ jàpp ni à la base ci milieu bis lay jóge aussi. non showbiz. Mm. milieu showbiz bi yàgg na fi. mosoo ca dégg lu ñaaw lu. suñu aîné yi doon def. mais xale yi ñuy accuser loolu ci milieu bi lañ leen di xamee je veux dire. ñooñu. Mhm. peut-être euh, tur la ñu bëgg di ko wut. Mhm. mais il faut ñu bàyyi benn xel. Thione Seck woyoon na ne a ngeen di ñëw. yàlla moo koy def ci jaam. Mhm. diw la ñuy teeru tey yàllaa koy def ci jaam gis nga ku ci bàyyiwul bëgg di jënd tur pour siiw wala nga naan lu ma dajeel jël loo dajeel rek fabal. man ngaa dajeeg nag lu nekk nañu bàyyi ay ay arriviste lañu ba pare sont sérieux te ay seer lañu nandi te dëgg am na loo xam ni dara du ko jaral ci àdduna man maa la loolu man mais ci showbiz bi laa nekk voilà wala c'est le monde du showbiz wala nit ki mi ngi bëgg tur bay bëgg damay wut buzz ak damay wut leneen ak leneen c'est pas ça buzz yàlla. bu la koy def sax du bu la koy roof ci yow sax du ko yëg mais képp ku koy def man maa lox loolu tey. Hmm. <laughs> nañ dem. d'accord ndax ndax jàpp nga ni parce que ñu bari dañ jàpp ni dafa am loo xam ne dafa am maanaam sénégalaises yi amatuñu ay modèle rawatina léegi ñi ñuy tuddee ay influenceuse ndax ñun jàpp nga ni dañ leen war a xoolee ay bëtu modèle bu ñu nee diw influenceur la wala influenceuse la ci sa ci sa xalaat. modèle moom du ci mbedd mi du ci mbedd mi nga koy wutee. nit ku nekk am nga modèle sa kër chaque personne bu yàlla bind ci àdduna war nga am modèle sa kër soit nga jël sa yaay muy sa modèle wala sa papa muy sa model wala nga jël sa grand frère wala sa grande sœur muy sa modèle mais boo juddee ci askan wu mag ngay sama yaay kay di sama papa mu juddu ngeen jur ma fi ma war a judde bu ma demee ba teggi leen fi dem naan diw mooy sama modèle gëwuma loolu. loolu eh, les complexés ñoo koy def te Sénégal y a beaucoup de complexés fëkk fëkk mi ngi leen di yóbbu Sénégal y a beaucoup de complexés yii ñuy def yëpp sonde des ay affaires ay complexé la ñu ñoom ñëpp Sénégal ah. man maa la wax loolu man y' a beaucoup de complexe quatre pour cent booy yi ngay gis ñuy wut rek ak ku mën doon ñoom ñëpp ay. complexe la complexe mooy lan personne. mooy li nga xam ni xamoo ko juddoo ci. fekkoo sa yaay di ko def fekkoo sa papa di ko def fekkoo sa mag di ko def nga ni naa ko def loolu mooy complexe pour lan bëgg tur kay mi ngi koy def siiw na man dinaa ko def loolu complexe la waaw mais bu ñu demee aussi ba am ñoo xam ni léegi osé nañu publiquement di wane yenn yenn gestes yu ñaaw yi wala di wane ni aussi euh, ay modèle lañ war a nekk ba xale yi di leen suivre ay ñenn ñoo xam ne ay influenceuse lañ leen di tuddee terewul ñenn ci société bi jàppee leen ay modèle di leen di suivre ñuy wane belle vie ñu koy apprécier yu demee noonu loolu ban gravité nga jàpp ni moom la war a indi. parce que gis nga belle vie. Hmm. yàlla moo koy def ci doomu aadama. ñoom dañ koy faral di wane dem Dubaï wane belle vie wala nekk ci benn hôtel sur place fii di wane yu demee <laughs> yu demee noonu. parce que loolu muy wane daf ko jomb daf ko jomb saa waay bu ñu naxante loolu muy wane daf ko jomb dem restaurant toog ñu servir la poisson braisé nga nga snap ko mooy mooy mooy daf la jomb nit jóge na fi yor milliard ci kontam dem vacances. te kenn gisul image ci moom lu mu ci wane moom la neex mu bëgg a dem Miami vacances wala Las Vegas wala Ibiza da nga koy gis ñu ñu soit paparazzi yee koy photo feeñal ko mais amul kenn gis nga les personne dignes les personnes qui qui ñiy dund dans l'ombre ñi nga xam ni au moins sont pas des complexés gisoo ci kenn ku dem restaurant di snap boppam gisoo ci kenn kuy dem vacances di boppam gisoo ci kenn koy def ñi koy def ñëpp sont des complexés maanaam lii jomb ma wala bu ma bu ma ñëwoon ci yow tey par exemple ne la démb de restaurant tel laa doon lekk lii laa fa lekk doo ma gëm moo tax ma ne naa wut preuve. d'accord complexe la kon da nga jàpp ni complexe mooy waral souvent yenn yu bare yu bare bari. mais wane woo yu demee noonu. mais bi ngay bi nga koy jël di ko def. Uh-huh. da ci wut pour ma xam ko wala Jean xam ko wala Massamba xam ko. t'as pas besoin. d'accord. t'as pas besoin di dem Las Vegas wane ci kii bi ne non non maa ngi nii di dem Las Vegas. Mm-hmm. wala t'as pas besoin nga ni non maa ngi nii di dugg Miami. ndax d'accord nga ci turu ñu ne diw influenceuse la wala influenceur la d'accord nga ci personne xam nga lu may bañ. Hmm. man bëgg man gëw ma moo influenceur gëw ma ko. lu tax. xam nga lu tax. Hmm. gëw ko. xam lu tax gëw ma ko. Hmm. te pourtant léegi dañ bari ci réew mi ah. mais yow kooku nga naan influenceur la. mais bu ñëwoon sa tey sa kër. ne yow mi nga xam ni moom ngay toppandoo moom ngay gis ak yooyu bu ñëwoon sa kër taal benn gaz bi teg sa loxo doo ko def. pare li muy def li bon loolu moom la concerné lu tax nga ko ci roy. pour kan na la sa bopp doy misaal. pour lan nga ko ci roy. quel est ton problème ak moom moom dem na peut-être loolu mooy viam mais ba koog viam. bu ko ci roy loo loo ko ci roy. dem na Amérique dama war a dem Amérique. Mm. dem na Dubaï sama xarit la ñoo doon ànd dem na Dubaï dama war a dem Dubaï. yow tey booy dem Dubaay amoo paas dañ la koy may boo demee hôtelu Dubaay ya amoo loo ko fayee. absolument. Euh, ah, loo fay lekk amoo ko. d'accord di dem di snap ci avion bi direction Dubaay ak destination Dubaay accident Dubaay ak loolu. la yow lu ban njariñ nga amal Dubaay te kooku di def loolu mu ngi fii bàyyi ndeyam lekkul naanul. wala ku jege ndeyam ak baayam wala ku jege ndeyam ak baayam lekkul naanul. te <laughs> kooku di def loolu tey doo dajeeg moom mukk ba mu téye sa loxo ne kii mooy sama yaay. duñ la sax présenter seeni ndey wala seeni bàyyi mbaa ñu yóbbu la dans leur maison familiale. duñ ko def mooy complexé. tey koo ci doon takk yi day dem ab bi ndey mbaa mu abbu baay bàjjan hmm. mooy vie complexée nit da ngay gëm li nga doon sant ci yàlla li mu la teg xam ni diw mooy sa ndey diw mooy sa baay. kër gi la ñu dëkk fii la am ku lay fonk na la fonk ci biir kër gi. la fekk nit day am kilifa. Mhm. ku mu mën a doon sama yaay ngi nii sama baay ngi nii. Mhm. mais yow liggéeyoo amoo salaire amoo dara. dem luy ji appartement trois cent mille. mais ñooñu ñooy star yi léegi ah, ñoom la ñuy wax influenceuses yi. ñooy entre guillemets célébrité yi par exemple. aussi mais ñoom rek ñoo fi def connerie. ok c'est clair. ñooñu rek ñoo fi def connerie. luñ la waxal yow ah. liggéeyoo. Mm. amoo salaire amoo fenn foo ko teg dem jëlu appartement trois cent mille. foo koy fayee luñ la waxal yow alors très bien per Samy Thioune moom la rédaction bu Senbuzz doon am ak euh, jotaay ñu doon am mbégte xanaa rek pour jeexal certainement du ñàkk aussi am na message boo xam ni bëgg nga ko jàllale ci soppe yi ak it ñi nga xamee ne vraiment képp kuy ndaw nekk groupe Faramaren Musique kilifaam nga Père Samy. waaw message bi weesuwul. que nañ leen dellu démb nañ leen indi base yi nañ leen delloo suñuy xel ci yàlla nañu xam ni ay jullit lañu. ay gor jur ñu am réew boo fa juddoo sa yaay di innocente sa baay di innocente war nga mën a doon innocent innocent nag c'est pas parce que xaw ma yoonu ndakaaroog xaw ma yoonu restaurant beeg yooyu c'est pas ça innocent mooy loo judduwul xamoo ko bu ko jéem wut ndax wut tur ndax bàmmeel mm. dafa am te dee day ñëw te am na loo xam ni teg gàcce sa ndey mbaa sa baay dara jaru ko ndax dangay am doom te subaa day màgg. d'accord ñun nañu fay bor bi. bor bi mooy ñun ñëpp benn bokk ci man. Mhm. je marche la tête haute Dakar au Sénégal. man Ndeye Fall Mukumba moo ma jur. Mhm. et fier d'être son fils. Mukumba cuune sama baay. fier d'être son d'être fils. Mhm. Grand Dakar gi laa dëkk. ngor ak jom gi sama ndey tegoon tànkam ba tey ma màgg am feerte ne ñooy sama ndey ak sama baay noonu nañ leen ko lebal suñu ay doom nañ leen may suñuy doom chance boobu ba ëllëg mhm. sa doom mën naa mën a taxaw ne man dey sama loxo ci kaw ndax sami cuune sama baay loolu nag li koy maye mhm. mooy gore mhm. maandu jub te regle xam ni fii xam ni fii du kër tëdduwee am na ñoo xam ñun bi ñuy nekk xale danga daan romb diw sax ñu ne caga la anamu tey anamu tey mm-hmm. danga daan romb ñu diw ñu ne wëyu la anamu tey nañ leen ragle te te xam ni lépp ci nettali lay mujj te xam ni lépp ci nettali lay mujj te tey la gën a dangereux ndax technologie bi loo def tey dans cinquante ans dañ naan na ko bàyyi sa kanam doo ci mën dara parce que yaa ko defoon te suñuy doom yaa ngi ñëw suñuy sët yaa ngi ñëw kon na rafet. macha allah waaw alors Père Samy Thioune la ñu doon am mbégte je pense que message bi jàll na xanaa rek di la gërëmaat bu baax a baax a baax Père Samy di la ñaanal yàlla aussi di la encouragé ak groupe seen buzz parce que yéen tamit euh, bàyyiwu leen benn yoon. merci beaucoup au nom de Ramdan. au nom des Faramaren maa ngi leen di sant parce que fu ñu ne rek fekk ngeen ñu fa. te da ngeen a euh, jël euh, un conseil encore bu ma leen di dolli. Mm-hmm. da du ngeen dama leen a seetlu. Mhm. maa ngi leen di suivre di leen seetaan. Mhm. du ngeen wane mukk lu ñaaw. dëgg la continuer sur ce chemin. parce que damay gis. da ngeen di ñëw suñu soirée. mais du ngeen loxo mbootu la fa dara lu ñaaw lu ngeen di wane. te am nañu ful la boo xam bu ngeen fa ñëwoon gis fa lu ñaaw filmer ko wane ko non de dañuy guerre ak yéen. mais vraiment continuer sur ce chemin ndax lu ñaaw jarta wane. jarta wane. merci beaucoup alors merci beaucoup jàppale conseil bu baax a baax te dinañ ko gën a dimbali ko di leen jox dig daje ci lu yàggul ak beneen invité sur la chaîne des leaders fii amaanillah